xale yi léegi-léegi mu yan leen ay mu neen yóbbu leen daar yi dem seen yoon gis nga man gis naa ñaar ñu daan rey muus maa leen gis ñoo dëkk kenn ki day suul muus dóor ba mu dee kenn ki xeej Oustaz Jéene ngi toog kenn dafa mer parce que Pape Oustaz bëggul lu soxor xeej la jam muus mi ba mu fël aw sax rek mu téye ndigg li ñu muy lii lan la nii waaye ñi ko def ma xam leen seen alku amul fu mu yem wax naa leen ne xaj sax moo tane muus kenn du ko laal nee naa la jinne muus rek la ragal boo gisee mag ñi di ko uut parce que jinni ñemewul muus te li muy néew doole yépp noonu la amee lu soxor gis nga muus xam na ku koy teral muus saalif lañ gën a ñeme gis nga su ma nii laayal Aziz su oto bi gaare Abdou Sall nee na dañuy téléphonante Abdou Sall dafa ñeme yàlla waaw bint bu oto bi ne dëriig muus yépp daw ñëw wër ma ma ne xanaa lekk ñu ñu tafaane ankay ñu toppatoo leen ñu lekk parce que euh, bàyyi ma di ko dimbale yàlla day jël seen wërsëg yépp dajale ko joxaat la ko nga garde ko bala xamoo ne sa sa wërsëgu soxna ñépp képp koy lekk ci sa dépense seeni wërsëg yépp dañ koy def ci sa kont yow moo tax nu sa tabe tollu noonu la say xéewal di tollu surtout jàppale bàyyi ma danga caa uutu yàlla te alquran moo ko tudd lislaam la ma laaj mais alquran moo ko tudd wa ma min daabatin fil ardi wala taa'irun yatiiru fil jawi illa ummamun amsaalukum alquran la kon leer na yàlla nee na bintu lépp luy dox ci kaw suuf ak lépp luy naaw ci kaw ñoo ngi yéen nit ñi yéen a bokk yàlla maa leen bokk bind danga nga naan xeetu kaña ne jaar ne mbët ne gunóor ne xorondom ne xaj ne muus ne golo ne fas ne mbaam ne nit illa ummamun amsaalukum ay xeet lañu comme yéen kon bàyyi leen leen xel li ñu tële sas naa leen ko yéen moo tax boo waree fas wi boo ñëwee jox ko ngubam ci sariya sax balla soo amoon jurti doo leen toppatoo sariya dafa wax ñu oola yóbbu la tribunal ne sa jur gi na nga leen dundal nga ne mënuma ko ñu jël jur nga jaay ko jël xaalis ba jox la loolooy yoon mais am na ñu yor xar duñ ko toppatoo am na ñu yeew fas duñ ko toppatoo wala xale yi ni ñuy def fas yi watiir yi xale bu ndaw nga jox ko fas mu taxaw ci digg ba jël karawaas gi dóor ci awra fas wi fas wi di wéq kees gi te yàlla wax na ko nee na ñoom ñëpp illaa ummamun amsaalukum yéen a bokk borom maa leen bind ti kaay ma wax la xam nga boo demee xorondom xorondom demal ci alxuraan am na fa saar suuratu nam la seetal yàlla di fonk jaamam bu ñuy wax xorondom mu daje yonent bu doon nit di buur muy Suleymaan xorondom bi defanteeg moom ba yàlla di ko nettali nit ñi yow yaay xeeb mais xeebul rabbana ma xalaqta haada baatilan nee na binduma dara ci am jot lu ma bind am na lu tax ma bind ko parce que am na responsabilité bu ma ko gàcc am na lu ma ko sant mais awma ma jot rek defar xorondom defar lii defar di mais yemba ngi nii yemb du lema nga lema ngi nii di faj <laughs> waaw yow man ngaa defar lem bàll Ajaa Bintu mënu ko mënuma ko xanaa jël suukar baxal mais xoolal yemb dem ci ay tortoori garab. naka la ko xamee beneen affaire nga ñu daje ñëw ci pax bi fi ñu liggéey am na ñoo xam ne ñii ñooy sàjj dëbb affaire am na ñoo xam ne ñooy defar suukar bi am na ñoo xam ne ñooy defar boîte yi ñu koy dugal noonu la ñuy liggéey ñii dem di wuti torto di indi bu ñu indee rek dem seen yoon ñii di ba ñu defar lem goo xam ne ber lem gi fii ber sax ya fële ber cere ja fële te nit manu ko Abdou Sall xalaatu ko man kon mënoo xeeb yemb te bintu bul ñaan yàlla fekk yemb yu dog fekk na ma saalum yemb yu dog mer ni nit ñi marché noonu la yemb di defee marché yemb suñu meree dañuy dagg ñoom ñëpp génn kër gi raatale dëkk bi nit ñi tëju Balla yaa ngi ki yàq fii de foofu nga laal a ngi yàq fii de non mu ngi riir de mu ngi riir de teggil sa loxo dëkk bi la ñuy raatale yépp yamb yamb yamb laa wax yamb yu dog laajte ko ñéppay tëju te dañuy mer dañuy mer rek dog dugg ci dëkk pour wax la ne yàlla wax nañu ne yow Balla bul gis melentaan xeeb ko bul gis gunóor xeeb ko waxal ne rabbana maa xalaqta haada baatilan yàlla bindul dara ndax am jot lu mu bind rek am na lu mu war a liggéey yow nga jël muus caravage jël muus rey ne say petax mais petax yi utal leen kaaf utal leen kaaf seen pepp fekk leen fa sa ganaar yi utal leen kaaf parce que euh, euh, muus bi wërsëgam ci wër la koy amee wërsëgam wër a ko koy may bàyyi ko mu wëri li nga bañ mu jël ko jël ko nga làq ko mais muus kenn du ko rey kenn du ko rey bintu maa ngi muus boo xam ne ñaar bu mu ubbee rek nii lañuy def seen tànk tàllal ma ko mel ni koy nuyoo ma téye ji su may tijji rek ñu daw njëkkante bunt bi quatre heures ndékki du matin au naagis buñ jullee timis ñu reer bu timis di jot ñoom ñëpp ñu ñëw dajaf Awa Guèye la abonné Awa Guèye restaurant la yor coor dañuy jël ginaar ndékki ginaar añ cinq mille euh, astafurlah cinq reer ndékki waaw par jour la sama muus yi lekk dix mille par jour bokkul ak bridel bi ñuy naan mais du wàññi dara parce que ñoom seeni wërsëg def nañ ko wiiri nañ ko sama compte donc maag ñoom ñoo bokk dépense illaa mun am saalukum comme ni ñu wiiree compte Abdou Sall sama compte rek mais gis nga bàyyi ma bàlla moytu ko moytu ko bu baax gis nga mbaam li muy doyee di ci nit yépp jinne ñemewul mbaam jinne mbaam du jommi mbaam mën naa fanaan ci àll fu ko neex dem bu ko jinne di seen di daw c'est que ak ni mu doyee dee ci yow boo ko sëfee mu lànk te mu ngi mu ngi mu ngi sëf ba diis xam-xam bu yàlla def ci moom gis nga loo xeeb rek am na looy nawlu la ci yàlla nëbb mbaam doo ko war mukk jommi ci àdduna mm. man nga war fas nag jommi waaye mbaam doo ko war mukk jommi muus du nekk ak yow mukk jinne gisal gisal dof rek nga teg muus ci wetam mm. dof ak muus jubóowuñu parce que jinne yi bëggul muus bàyyi ma kenn du ko laal mm. yónent yónent bu ñuy Suleymaan yónent la buur la mu reyanteeg benn xorondom benn xorondom la xuloon udxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaana wa junuudu wuum laa yashcuruun suleymaan mer ne lu tax muy wax loolu xam nga am na kilifa yu koy def am na kilifa yoo xam dañu autoritaire de trop de trop dañuy dem ba euh, njaboot gi ci seen suuf sax dañ koy xeeb seeni dàll leen gënal nit seeni dàll laa moo leen gënal njaboot gi ñu yor waxuma waxi dof damay xam naa ko nit ki ñu nekk sax jàppu ni ki doom aadama pour ñoom benn benn affaire la rek benn euh, lu dul dara rek lu fa ne la te ku mel noonu sa njaboot dana échec mënoo ci dara ku fooyee njabootu jàmbur yàlla échecal sa njaboot demal ci taalim kii jàngalekat la mooy jàngale ci daara Abdou Aziz borom taalim nee na Maodo moo reprendre téere bi taalim mu taalim la Cheikh El Hadj Malick reprendre tuddee ko xantaratul murid tuddee ko xantara mas naa dégg ci waxtaan ne wéy Maodo njëkk a taalif téere bi borom taalim jël ca ma ne ko dangay ngay fen deel wax dëgg Maodo dafa reprendre téere bi fi la ko fekk bàyyi leen seen njaxas yi ngeen di def da ngeen di yablu kër gi rek ndax amu leen aliwa ku amul aliwa lu muy wax mais demal ci taalim borom taalim nee na Adja Bintu soo bëggee sa doom am xam-xam baa nga am xam-xam baa sa am xam-xam teralal boroom xam-xam ku teral sëriñu daara ab du Sall sa doom dana am xam-xam walla sa am xam-xam parce que loolu lañ la mën a fayee ndax xam-xam nga teral moo tax xam-xam lañ lay fayee kiy bale ak patron bi ci bureau ak kiy garde est-ce que ñoo bokk peyor bokkuñu peyor bokkuñu àtte bokkuñu tuur kii moo tudd patron kii tudd gardien kii mooy tudd balekat bi moo tax gannaaw xam-xam nga teral ñu fayee la xam-xam moo wax loolu bàyyi ma bu ko def abadan loo gis Suleymaan nag daal di xeeb rek Euh, xorondom bi mm-hmm. xorondom bi da koo seen dégg muy ñëw mu ngay riiree ca Amérique di ñëw mm-hmm. te Souleymane moo yilif jinne yi mm-hmm. yilif nit ñi yilif rab yi yépp fu mu dem ñu riir topp ko xam nga kii mën nga naagu xorondom bi dégg ko ne leen dugg leen kii mayam yi yegg na foo xam ne yëgatul ne xorondom am na gunóor am na boolewuñu ci yëg-yëgam te wax na dëgg am na ñoo xam ne seen juddu seen sant seen askan ci la ñu xeebee ñëpp te duñu dara képp kuy xeebe doo dara parce que yàlla kenn du xeeb liggéeyam kenn du xeeb aussi njaboot gi wër am na lu la alquran sant subhaana alladi saqara lana haada wa ma kunna lahu muqaranin yàlla la neex mu tàggat Iran tàgget Balla tàggat Pape gi ñu topp Bintu bu ñu santee ñu def bu ñu teree ñu bàyyi ndax suñu junniy moromang fi ñemewu leen sant ndax yàlla tàggatu leen pour moom yàlla ne bàkk delloo ma ko ne ma yàlla jëf yow mi tàggat ñii bañ nangul ma lii ci su la neexoon lànk ko kilifa noonu lay def dellool topp gi ak yaakaar gi ak ni ñu lay dawalee ak yi ñu lay defal nga sukk delloo ko sunu borom